برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان بسم الله الرحمن الرحيم سألك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير بيا يا مسلا على سيدنا بالفاتح لما أغلقه ناصر الحق بالحق وعلى آه علي حق قدر المقدار العظيم بودي مقدمة بما وخيرك كي آية بما عندي سالك بأن الله هو الحق الحق قدر بما عندك لأن خمنا تاي نيون كي حق كي تفسير أسماء الله الوزنى الحق هو الله يلا رمو يدق يلا دقل دي دقل واي دندو دو دق يلا دقل دي دقل إياي دقل waaye bàyyi moom mën naa doon bàyyi ku ne waaye yaay wa anna aljanata xaq wa anna naara xaq wa anna saata atiyat aljana dëgg la safara dëgg la yàlla dëgg la alxaqu wallah yàlla rek mooy dëgg mawjudun ala wajhin laa yaqbalu adam yàlla dafa am xamin boo xam ne xamin ba nanguwul ak ñàkk te xamin ak yàlla amul soppeeku nii la toogee woon nañ fa demaat ndax mu soppeeku toogee ne déedéet yàlla toogaayam amul changement yàlla mooy dëgg saalika bi anna allah huwa alxaq wa annahu yuhyi almawta wa annahu ala kulli shay'in qadir yàlla wal kullu minhu wa ilay ñëpp ci yàlla lañ bàyyi ko ci yàlla la ñuy delloo jaam bi bu fekkee ne in kaana mawjudan fa huwa mawjudun billah koo fi gis mu ne fi rek daf fi ne ci yàlla loo gis mu ne fi rek def fi ne ci yàlla nekkut ci laa bi zaatil abdu du jàggeen ca jëmmi jaam ja fal habdu boo jëloon al habdu nga ne habdullahi rek moo tolloo habdu zaat habdu zaat jëmm jëmm ja jaam ab jëmm ja kon nag jëmm jooju tey mooy moom it dëgg la ci xamam bu fekkee dafa amee ci yàlla waaye xamam gi bu ko tëbbuwut ci yàlla rek xamam gi du dara ndax ay xar rek boo ñëwee dootoo fekk ko ak foo ko mën a fekk weyn kaana xaqan laysa bi nafsi doomu aadama bu fekkee dëgg la mooy li ma wax léegi ci wolof rek dëggam gi lenn la mën a nekkee dëgg mooy euh, mooy ci yàlla rek waaye xaq laysa bi nafsihi bal euh, huwa xaqu billah wa huwa bi zaatihi baatil bu fekkee nit ak nit ki rek la cam du dara neen la lawlaa ijaadullahi lahu bu duudoon li ko yàlla amal neen la bu duudoon loon li ko yàlla daggalee daggee ca leeru Muhammad neen la bu fekkoon duul li ko yàlla xamal xamal ko ci melokaani boppam neen la bu fekkoon duul li ko yàlla xamal mu delloo ko ca lawlaaka googu nga xam ne mooy tagg bu gën a mag ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca la kon doomu aadama neen la waaye nag yii mu xamalee ko moo tax moo ko gënal ci lépp lu mu bind dafa bind doom aadama ngir boppam bind ngeen doomu adama ci leeru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bind doomu aadama mu ko idaafa ko ci boppam muy abdul abdullahi wala abdu zaat bind doomu aadama ci boppam teg ko ay toog geef yoo xam ne xëllëg mboolem li mu moom rek la ci taxawal laaj ko mu def pour mu rendre ko compte wala laa wujoodi lil wujoodi illaa bihi bu dul nag xam ak yàlla ndi kon keneen du xam kon nag moo tax waaja toog ba mu yàgg mu ne man maayi kooka wax na dëgg ndax bu dul nag kooka du am al mutahaqqiqu wujudu aslan wa abadan waaw karimullahi saabitun laa yazul maanaa eh, kullu shay'in haalik illaa wajahu léppay xalaku ba mu des wajullaahi ba mooy wajullaahi nag boo ca génnee wacu xaq mu jeex boo ca génnee wacu rahma mu jeex boo ca génnee wacu eh, eh, mulk ak malakoot mu jeex bi maanaa itlaaqiyatu asmaullahi fi lmusammayaat loolu la la bu ko wax maanaam léegi yàlla tëbbam nga def dafa àgg ci tuddam dafa jógee ko ci jëmm ja ñëw ca turu ya ñëw ca melokaan ya ñëw ca xattabam lim xamat moo tax ñu ne doomu aadama aasaar la ci jeexitu turu yàlla yi ndax doomu aadama yàllaa ko xamal moo tax doomu aadama kenn rek la tolloon bugg-bugg ci kaw suuf mooy yàlla ndax aadaaru yàlla la ci ci yàlla kon nag karimul la allahu saabitu lazi laa yazul yàlla mi sax te du fi jógee ko mukk al mutaxaqiq wujudu aslan wa abadan de léegi nag ñu boyal kalimatu xaq ci alquran jublu ci mandute wala ñu jublu ci islaam wala ñu jublu ci sidq ñooyu yëpp mooy yàlla yàlla mooy xaddul yàlla mooy lislaam ndax mooy salaam yàlla mooy sidq ndax mooy saadix moy sadiq deug bu nit ñi tok bay xam luy deug yalla deug won te sidqu gis un la ci mëna haq mana deug xaj la rek ci haq mo ñu misal danañ misale yàlla ba tay wa wasful xaqi la yatahalla bihi ahad min al xalqi ila ala sabil sif moo mana ñut ki ñu neen di ni mo dëggu mo dëggu ci dit su gatta waaye dëggu mutlaqan kooku yàlla rek moo ko yeyoon mu nga noonu wa sa yasulu kullu mulkin zahirin bépp nguur gu fi ne bu feeñ ak gu nëbb dana dañ bi sa wàlli dunia bu àdduna jeexee ba mu des xaqiyatu yàlla wa yabqa mulkul mawla alxaq waxdahu nguur ak yàlla gu dëgg rek moo fiy des moo tax yi dëggu ci àdduna te bokk ci Muhammad dafa bëri boo demee ci salaatul fatiha boo xaraf ya fukk la ak téeméer laa juróom-ñett mu tolloo xàqu boo tolloo boo boo boo séddalee xam na noo ko calculé mu ngi lay jox 639 ci salaatu fatiha 639 yooyu boo génnee 139 ya rek 139 ya boo ko génnee rek 139 euh, mooy alxàqu boo ca defee liif ak laam te bon nag boo génnee euh, liif ak laam googu euh, mu des 500 ya 500 ya muy siru salat fatiha amna fum fu sirul haq sirul haq moy boo calculer moy 639 nga génnee 139 yi moy al haq mu des siruba la ilaha illallah ay boo calculer calculé ay don siru bobu moo tax haq bi haq bil haq e man ki ja man ki jamu yàlla fi diko jox jaamu yàlla yi haq bil haq mom mo lay jox 591 591 bobu nenañ lo dogu surtout na nga xam dëgg nag di ko layoo nag bëgg ñu jox la ko da ngay def 591 rek yàlla jox la ko eh, boo too boo boolee moom daal li mbir mbir yaa ngoog daan yal na defal tawfiq ak képp ko takkoo baatu laa ilaha illallah xalaqul mubin bés bu na nga def ko téeméer yoon yàlla dana la dàqal ñàkk ci sa dund bi te sa mbir day yomb waaye nag ci condition boo paree xaqu ga moo tax nak nag boo buggee nag sa jikko rafet lool nit ñi bugg la ndax melokaan xam nga nit ñi boo demee ci arab yi sax dañ ko wax waa ji rek wax bu ñu ne gi dafa diis kenn mën da wax ci kanam hada taqil insan taqil dafa diis woo kooku nak bu fekkee da ngaa bañ diis ci kanam kenn day liggéey xàqu mbooloo doo wax ci mbooloo mukk ñu ne cam te niw na nga toog mbooloo wara a jël kàddu te duñ la jox te buñ la joxee nga wax te doo xam ndam kalimatu xaq bi rek moo kra di ko jëfandikoo dafa baax ndax moo mooy juñu laay laay la la salaat fàtte suru ba dëgg mooy lay laay la la ndax xaaral laay laay la la fukk ak ñaar la fukki doog ak ñaar la salaatu fatiha moom it fukki doog ak ñaar la moo tax mu indi la fii laa ilaaha illa alxaqul mubin nga war koy wax téeméer yoon boo buggee nag di ci def karaama ci wàllu jikko yu rafet mooy da ko di liggéey mille fois mooy yaa xaqu yaa xaqu yaa xaqu boo koy liggéey si jikko sa jikko day rafet sa néew na it ngay xëccoog ngit ci dara te doo ca jot ndax yàlla da lay jox sens moo tax ñiy layoo ñoom tur wi moog ismu adulu waaye xadlu nag boobaa man ni muy nekkee lay ci yow lay nekkee lay ci sa kaw ndax booy wax yaa xadlu yaa xadlu di ko sigar 104 di layoo bu fekkee yaa xam dëgg yàlla dana la ko jox waaye bu fekkee waxoowoon dëgg yàlla day jox ki nga siqal mbir ma dëgg yaa xaqu it kasaalik problème bu mu mën a doon boo koy liggéey yaa xaqu ak layo bu mu mën a doon yàlla da lay jox ndam ci kaw euh, sa sa beneen côté ba su fekkee yaa nekk ci dëgg soo nekku ci dëgg yakunu hujjatan alaykal dafay nekk dal ci sa kaw laa lakka du du la ñuyaal mukk rabbana istaxnina min faqrina ñàkk gi ñàkk yan nañu ko yàlla dàqal ci bi ci bi ci xaqu ismullahil xaq ndax laa ilaaha illa malikul xaq mu noonu la mel mu biin mag ñi ñëpp ci d'accord boo demee ci téere koo dem sëñ Tuuba koo dem rek laa ilaaha illa malikul xaq wax na ca bàyyi koo dem rek laa ilaaha illa malikul xaq wax na ca ndax boo demee ca suratul anaam moo laa junjal aaya boo wax ne booba di wax ne xawlool xaq walahool mulk Cheikh Mouhamadou Haadi Ibrahim yal na yàlla yokk leeram fa mu tëdd moom waxtaan na ceeg man ci ba aaya boobu ba tey moom da nga daan ñëw rek léeg-léeg mu ne la ah alaa jim loo xam ci nangam bi ma demee ba comprendre ma lu ma wax rek ma ne ko xamuma ci dara mu ne waaw xanaa xamoo ne laa ilaaha xawlool xaq walahool mulk mu ne ah, mu ne ma ah, boobu alaaji ji mbaax de ba ñëw benn bés mu ne ma loo sóoratu ya yusuf ñaata aaya la ma ne ko xaama ko mu ne waaye alaaji ji wax ma rek ma ne ko 111 mu ne ma 111 mu ne ma looloo tax nangam ak nangam ak nangam yana na yàlla yokk leer bàyyi ak njabootam yëpp ñoom ñëpp la yonent bi waxoon te sahabam ya rek asaabi kan nu joom bàyyi mi ixtadaytum ixtadaytum mooy bàyyi rek ak njabootam gi kan nu joomi bàyyi mu ixtadaytum iqtadaytum ihtadaytum yal na yàlla yokk seen leer talabtukum minal xaybi wa antum awliyaa lillah mënuñ leen mënuñ di leen tudd nag ndax wa dëgg yàlla eh, doomi royteef lañ te kon nag foog ñu bàyyi royteef la te ñoom ñuy doomi bàyyi kon nag kuy wax ci alquran wala ngay wax ci turu yàlla te nga bokk ci ñoom doo mën a ñàkk jël référence te ne nañ eh, koy roy rek garant la loolu mooy wala kum fi rasulullah uswatun hasana képp kuy dund taamoo koy roy rek ñu ne boo demee ci baatin boo gisee ñu ci xuuti eh, sëriñ mooy pour nga xam ci ko ci roy rek koo xam ne boo koy sigar sa xel daaj ko kon nag yal na yàlla yokk suñu leer yokkal leen seen leer tëbb leen ci baatin bi maa ngi leen dénk kalimatu xaq bi dee leen ko liggéey surtout boo nee ci dëgg ñu na laa tuumaal ci ay neen jëlal xaqu liggéey ko wala nga jël 108 eh, eh, multiplier ko trois fois wala nga ma jël cent huit multiplier ko ci boppam nekk ba ni ñi ñëpp nelaw ndax yàlla dëgg la te moom du nelaw laa tàq soo si natu wala noomun nga multiplier ko ci boppam liggéey ko ci boppam bët seen nga dem ca tribunal ba yow yaay gagné wala nit tuumaa loonu la day toog rek xoola tuubal la yana bul jiital juróom fukki bisimillahi rahmaani rahim doog a def lim boobu seen bokk seen xarit al imam Mouhamed Jimlo wasalaamualeykum أرحام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان